bismil ilaahi déglu leen mana ma way gu maam bàmbay boroom mooy bismil ilaahi déglu leen mana ma way gu maam bàmbay boroom mooy bis bu rëy bamba mu jihaat ba sampu fi màggal gu jar jullit diraam jullit diraam ba yegg si fi Ahmadu Bamba mooy ki dëddu àdduna yàlla fayee ko bis bu rëy bu màgg na Ahmadu Bamba moo jëfal xuraanu looloo waral muy xaritu Raxmaanu Ahmadu Bamba fi taalif lu yéeme lool yàlla fayee ko bis bu rëy bu am bi yool Bamba fi sagal soo daana bañi damoo ca kaw ña di bi daana màggalam gi ku ko màggal danga màgg doo metit wu safan dana gudd màggalam gi ku ko màggal danga màgg doo yëg metit wu tar safan dana yaari ganaar ak yenti béy ak yenti xar ak yenti nag yenti gëléem 18 safar yaari ganaar ak yenti béy ak yenti xar ak yenti nag yenti gëleem dix-huit safar yow mi jullit bul waaj jugal dem Tuuba santale Bamba Yàlla ngir bis booba yow bul waaj jugal dem Touba jugal dem Touba jugal dem Touba jugal dem Touba jugal mi jullit bul waaj jugal dem Touba santale Bamba Yàlla ngir bis booba bul fàtte sa ba baasu kurus boo ko defee yawmal jazaayi doo fa rus boo fa demee bul fa jëlub cartable waxuma laak sàcc rajo ki portable yow mi jigéen bul def catuuba bopp neen dalay jural sa màggal gi gi gi neen yow mi jigéen moytul bu baax xeesal fa baa sol bon muural sa cër sellal fa moytu faa yóbbu ab pirig baa mees yéen góor ñi tam bu leen tafu mbaa mbaa di riisu moytu faa wéetoo ki jigéen ci ruq boo ko defee sa màggal gi dana yàqu yéen góor ñi tam buleen tafu mbaa baa diriisu moytu faawee tooki jigéen ci roq boo ko defee sa màggal gi dana yàqu moytu faa tooñ moytu faa tux baa sax nga dem fa di fa carte boo ko defee bisub fay ba danga perte policier beeg sapeur bi ak gendarme na ngeen woyof nooy mel ne tàndarma yow sëfër bi te yal ta ngay daw nànk te xate te xate xaaral nga teggi sa tànk yow sëfër bi te ta ngay daw nànk te xate safar bi teeyal tangay daw nank te fu mu xate xaaral nga teggi sa tànk te bul fàtte ndénkaanu sunu mam fallu mam fallu ne bu ne yay nga ni yollu yow safar bi teeyal tangay daw nank te fu mu xate te fu mu xate xaaral nga teggi sa tànk te bul fàtte ndinkanu sunu mam fallu mam fallu ne bu ne yay nga ni yollu yow jaaykat bi jaayal set a jar bul bëgg bay na ngay wax di wor yow mi jënd bul jënde xaa xaalisu foo dalay jural sa màggal gi gi gi sa màggal gi lépp di foo yow mi jënd bul jënd xaalisu foo da jural sa màggal gi gi gi sa màggal gi lépp di foo maa ngi taxaw lu ñaan yàlla màggal gi wey ci barkeb borom màggal gi sëriñ Muntaxa Mbàkke yal na yàgg fi bëtub safaan baabu iñaan baabu iñaan romb ko fi